mbokk yi baaxoo xibaaru Bambuk dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. actualité locale. ñu di ko tàmbaleeg euh, waajtaay élection locale yi fii ci euh, Koungheul ak li nga xam ne mooy euh, dépôt liste gannaaw ba nga xamee ne daal di nañ koy tëj daal di leen may aussi 72 heures yoo xam ne dinañ. daf li nga xam ne mooy vérification nombre de listes yi nga xam ne daal nañ koy àpp fii ci communes yi ak ci département bu Koungheul toll si na ci 54 listes yoo xam ne déposé nañ ngir fas yéene jongante euh, élection locale yi di ñëw ci loolu nag ñu mën a lim ci arrondissement bu luur am na 10 listes Ribo 2 ak Lour muy 8 boo demee ci arrondissement bu Missirah Wadène am na 24 list gent paate am ci 9 màkk yob am ci 8 misira wadden daal di ci am li nga xam ne mooy 7 nga dem ci arrondissement bu Ida Mouride euh, ñu daal di fay euh, compter lu toll ci euh, fukki liste muy 10 Fass Cekkeen am si ñeent Ida Mouride am si ñaar saali Escale am si ñeent commune bu Koungheul nag moom tamit juróomi liste la am département bi am li nga xam ne tamit euh, mooy juróomi liste boo xaymaa lépp muy 54 liste yoo xam ne euh, ñooy teewal askan wi ci jongante yi nga xam ne dina am ci euh, deux mille vingt 22 ci loolu nag le 12 novembre ci information yi nga xam ne daal dinañ koy taataan si lañ fas yéene wax yan liste yoo xam ne ñooy fas yéene dam parce que ba léegi même bu vérification amee dinañ xoolaat ndax liste yi mujjee dugg yëpp lépp matal nañ ko su boobaa dañ koy daal di publier ñu mën a xayma ñaata liste ñooy war a jongante li nga xam ne mooy élection locale yi di ñëw leneen élection locale yi ak defar soo gox gannaaw ba nga xamee ne ci dëkk yi bëri préfet bi daal dinay jël ay ndogal ne seen liste yi euh, maanaam duñ mën a dem élection dañ koy régité lu tax parce que dafa am nuroo ak euh, liste bi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar ci loolu nag Sénat bi nga xam ne moo yor lépp lu yor ci wàllu élection fii ci euh, Sénégal dal dinay génnee communiqué daal di dàq loolu yëpp di wax ne loolu nga xam ne préfet yi daal dinañ koy yëkkati si seen gox bokkul ci code bi li nga xam ne war na mën a tax ñu daal di rejeté li nga xam ne mooy euh, liste yooyu noonu. actualité nationale. ñu daal di dem fële ca Sangalkam maire bi daal di nay jël lu toll tabax lu toll ci euh, fukk ñaar fukk ak benn sald de ci commune yu ngi naan Kër Ndiaye Lo ak euh, Kunun Ngalam loolu nag mu ngi ko tabax gannaaw ba nga xamee ne dëkk ba euh, daal di école bi fa nekk daal di ñàkk salle de classe baax a baax loolu nag mu ngi koy def gannaaw ba nga xamee ne dëkk boo kon ni ñu ko waxee léegi daal di nay ñàkk salle de waa gox ba daal di joytu ko ba ministre bi daal di si jot maire bi autant pour moi daal di si jot. daal di tabax li nga xam ne mooy salle de classe ci gox boobu noonu conseil municipal bu Ourour nga xam ne mu ngi ci département bu gin Guinguinéo moom tamit daal dinay jox ñi nga xam ne mooy élèves yi nekk ci école bi yëpp ay kit scolaire pour waajtaay euh, ubbite école bi nga xam ne ñu ngi ci ba léegi ci kit yooyu nag ñu mën cee lim li nga xam ne mooy ay bic ay équerre compas règle cahier ak sac yoo xam ne dina tax élèves yi nekk ci gox boobu ñu mën a eh, yembal seen jàng eh, nu mu gën a yombee ci loolu nag ñu mën cee lim ci teewaay ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci eh, bés boobu ki nga xam ne moo fa teewaloon IEF bu gin ginnaaw parents d'élèves yi ak. mbooloo mu takku ñëw teewale li nga xam ne mooy euh, mbir moomu. actualité internationale. ci wàll euh, international la ñuy def ak waajtaay élection yi fële ca Gambie gannaaw ba nga xamee ne ñi déposé seen candidature bëri nañ liñ ci mën a lim nag mooy juróom-benn lañ daal di euh, pour le moment lañ daal di xayma ne ñoom ñooy bokk si li nga xam ne mooy jongante boobu ci loolu nag ñu mën cee lim ki nga xam ne mooy président sortant bi di Adama Barrow keneen ki di Ousseynou Daouda Maama Kandé. Khalifa Sall mbay Fall ak ñi nga xam ne ñeneen ñi nga xam ne euh, bokk nañ ci mais ñu mën ko xayma daal ci six listes yoo xam ne daal dinañ leen tënk ne ñoom ñooy fas yéene euh, jongante li nga xam ne mooy élection présidentielle fële ca Gambie. sport. tàggat yaram la ñuy daan ak ballon d'or bi nga xam ne dinañ ko wax la génnee le 29 novembre ci xabaar yi nga xam ne nag daal dinay génn ci suuf ñi ngi wax naan Lionel Messi moom daal lañ daal di tabb même bu fekkee officiel mais ay rumeur ci suuf wala boog li tubaab di wax fuite nee nañ na ki nga xam ne mooy Lionel Messi moom daal lañ fas yéene tabb ngir jox ko ballon d'or bi loolu nag ñu ne daal dina koy yëg moom ba dal di def li nga xam ne mooy conférence de presse waaye nag ñu daal di taaxilu fii ak le 29 pour mën see am lu gën a leer gannaaw loolu fii ci Koungheul tamit